asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 31 octobre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag moo xam suñu làmb la Leewtoo point net Leewtoo TV ba ca Lutte TV fu ci nekk rek tey xëy nañ gis fa ay xibaar bu dee yëglikaay biri suñu làmb la nag moom la mu ñu xëy andil moo di diggante Modou Lo ak Ama Baldé daal la xëy wane ci ay photo ñoom ñaar ku ci nekk yor sa butéel wala say butéel du sette ko kay wax nag moo di Ibou Diouf ma nga xam ne moom mooy magi Modou Lo Ibou Diouf nag danañ ko combat bi nga xam ne moom la ñuy wax war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lô ndax du ay risque Ibou Diouf ne déedéet ay risque moom nee na ci nee amul benn risque boo xam ne nii moom la Modou Lô war a bëre ak ki nga xam ne moo di Ama Baldé moom jàpp na rakkam ji daal lenn lu ko Ama Baldé mën a jaaxale ci mbirum làmb jàpp na ne loolu moom amul ba muy nekk ay risque ci ne ba tey ca combat booba mën nañ ko caa wax buñ demee ca fa nga xam ne moo di ca nag moo di Demba Demba xarañ ñoo moom la mu xamal Ama nee ku la ñëw jël combat bi nag comme moo ko waxoon di wër di wax ne na léegi nag li ci des mooy bu ma fi nekk di wut ay raccourci di jaar fii ak jaar faa li mu war a def daal mooy na ñëw dëggal boppam jël combat bi ñu bëre ko moo gën wër wëraanoo bi loolu mooy ay waxi kooku nga xam ne nii lay moom moo di demba fa nga xam ne moo di ca nit TV ba tey bu ñu continuer dem ca fa nga xam ne nii day moom moo di ca sunu làmb wala ñu dellu siwaat fa bokk mu mel ni ki nag yëglikaay bi moom mu ngi xamal ne combat mu sax day bu ngeen sàgganee moom daanu ca géej ga lay dox maanaam daal jeex wala bokk mu daal di fay jaare lamb am daal bu ñu sàggane moom mu ñàkk a am la ñu gën a am fi mu nekk nii suñu lamb xëy tamit wax nu loolu moo tax nag yëglekaay bi ne est-ce que sax lig ni ko lay nekkul bopp ci di war a lijjanti bombardier ak ki nga xam ne moom moo di rëg-rëg pour tëgg seenu combat yëglekaay bi moo ñu koy xëy di wax ba tey fi nga xam ne nii moom moo di ci suñu lamb ka nga xam ne moom am na combat ba di ko waajal ka nga xam ne na mu moo di sitta sitta nag kay wax moo di max margan max daal la mu xëy xam ne daal na li leer ba leer day ñuy xalaat naan Siteu ndax mën naa daan Papa Sow wala mënu koo daan mag si ne ne ñu xalaat leneen ndax nag Siteu mën naa daan keneen ku ñu Papa Sow te nag ñoom bu ñu yaakaaru ne mën na déedéet a am jàpp na ne moom buñ la ñuy yëkkati ndax jàpp na ne moom su ko roogee day am ndam ñu ne ko waa max ndax yow dañ lay dox ay combat wala promoteur la yónni mu ne waaw am na ku mu yónni de di ma dox ay combat nee nag bokk na ci Malick Niang Reug Reug Sa Thiès Bosse Moussa Ndoye ak Modou Anta ba tey Père Max moom mooy wax ba tay tamit adversaire ki nga xam ne moo di Modou Lo moom na gis na kii di Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine ak Bombardier nee na ñooñu ñëpp day ay adversaire lañu pour ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo waaye suñu làmb door ba moom ñëw na ca dana loolu da dañ ko war a gën a yokk gën ko jëmal may ko doole ngir képp koo xam ne nii ëpp écrit nga ëppati ay ndam buñ la ko mu am loo xam ne sax dana la ko jural ci ay koom ba nga xam ne dina gën a motiver ñi nga xam ne ñoo ci des ngir ñu gën a liggéey ñii moom seen ab liggéey buñ ko defee tam daal daa ni moom li ñu résultat yoo xam ne yu baax la muy waa école de lutte Bac Seras mu mel ni ki ñoom yëgle kaay bi na douze combats la def quatre ma daal dox defu ko ka nga xam ne nag mooy tëdd fii ba di Bac Seras moom ay année balance am saa yu ñu xëyee a moo di booy fay la ak DMX yeneen mbër ya moom ay année balance ñoom tamit def nañ ko maanaam daal bëre moom jaaruñu ca ka nga xam ne nii moom tëgg na combat wala mu tëgg ay ñetti combat yoo xam ne ni day yu mag a mag la ba ca mujj barki démb mooy diggante ki nga xam ne moo di bébé Saloum ak Franc muy jamaykee jam nag fi mu nekk nii ginnaaw nag ba mu jógee Gambie ne day internationalisé lii nga xam ne moo di làmb ji jam nag ne na léegi xam nga lu mu naram dem ci réewu États-Unis dafa jàkkaarloo ci diggante Franc ak ki nga xam ne nii moo di bébé Saloum mel ni ki jamaykee daal fi mu nekk nii moom roi des arènes bu amee ci làmb moom itam roi des arènes la bëgg a doon rawatina nag fa nga xam ne mooy ca Gambie wala boog roi des promoteurs ca Gambia kon daal jàpp na deel benn Saalum Franc moom ah seenu jàkkaarloo ci réewu États-Unis loolu la jamaykee nas te moom la bëgg a def yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw ba tey di ñu wax loolu bu ñu demee nag sama xam ne moo di ca Leewtoo TV moom Pape Thialis Faye moo fa xëy di leeral moom nag la mu xamal ne day nee na combat ki nga xam ne moo di Boy Niang Balla Gaye numéro 2 nee na lamb la ju jaadoo jaadu ku ko tëggit am na lamb waaye nag moom fa actuellement fi mu nekk nii nekk gul di dox benn combat ndax nag li koy waral muy dagg muy fas ak toog waxtaan ñoom ñi ko seet nee na loolu amagul te mu loolu amul moom kon yaakaar naa wut combat wala tëggul combat mën a gula ne Pape Thialis moo xëy tey di wax loolu bu demee nag fa nga xam ne ni di mooy ca Leewtoo point net mu mel ni ki docteur Alioune mi jiital lamb ji ak Gaston Mbengue mi nga xam ne promoteur bu mag a mag la suba nag ñu ngi yëgal ne mooy seen bésu anniversaire noonu la ñu Leewtoo point net xëy di xamal waaye Pape Dia di promoteur lu simple ñu gëjoon koo gis ñetti at daa mel ni nag retouram mu ngi koy waajal ci làmb ji àndul ak dóor waaye damay dellu ci anniversaire Alioune Sarr ba docteur Sarr ak Gaston Mbengue le promoteur mu mel ni ki nag kon suba lañ koy def ci àjjuma ji kon nag lañ leen di ñaanal daal mooy fan wu gudd wér gi yaram ak itam xaalis bu baree bare bari waaye di ko ñaanal bépp doomu aadama feete bés bu dindi si moom lu neex a neex a neex la yàgg maa wax mu si bésu anniversaire kañ la waa Leewtoo TV si revue de l'arène bi ñu ànd ak si jàngatu arène Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye di nuyu internet Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a si àddina bi rek leen wax ne nuyu nañ leen si leen ñaanal leen jàmm di ko saaku ci ñoom 100 pour 100 làmb kese ci Leewtoo TV. li na si jàngatu journée yi nga xam ne nooy def euh, làmb Leewtoo TV Leewtoo point net ak sunu làmb te nag nu commencé sunu làmb sunu làmb tey dafa xëy dalal ki nga xam ni mooy Ibou Diouf directeur technique wu Rock Énergie di mag Modou Lo moom daal dafa validé ay ay combat nee na combat yi nga xam ni mooy Ama Baldé Modou ak ki nga xam ne mooy Boy ak euh, Balla Gaye ay choc yoo xam ni euh, amateurs yi ñoom noo koy laaj wax na tamit si diggante combat Ama Baldé ak euh, ki nga xam ne mooy Modou Lô nee na combat boobu si taxawee yaakaar naa combat boobu nekku risque pour ki nga xam ne mooy roi bi. waaw moom moo loolu moom Ibou Diouf di mag ci Modou Lô yaa ngi dégg na ne Ama ak Modou rakam lamb la Balla ak Boy Niang la suñu sénégalais ñoo ko réclamé ah bu dee sénégalais ñoo ko réclamé nag yaakaar naa tamit promoteurs yi ñu ngi ciy jéem li ñu mën kon li ñu mën xam mooy yal na yàlla def. promoteur bu mu sa wërsëg nga réussir combat yooyu tëgg ko comme ni ñu koy waxee mais li ci des mooy comme lu mu wax ne euh, maanaam euh, nu mu ko nan la ko sax que ni maanaam Modou di rakkam amul risque bu fekkente ne combat ak Ama taxaw na waaw loolu mën nañ ko koo nangul parce que mën na bañ a am risque parce que mais nag dama naan euh, lamb lépp ay risque la même bu doon tey Modou la dañ ne day bëre ak Yawou sax risque la ci moom parce que li tax muy risque bi mooy bi nga jógee dem di wuti ndam sa morom jóg di dem wuti ndam yéen ñaar ñëpp kon ci ay risque ngeen nekk yaa ngi dégg mais nag xay na mën nañ ne risque bi tax muy wax yaakaar naa ne mu risque boo xam ne ñu ne Modou Lo moo mën Ama Baldé cent wala Ama Baldé moo mën Modou Lo cent pour bu keroogee da nga naan rek ñaar ay mbër lañu entraîné nañu ñu si giw bi war a ngemb war a war a bëre bokk kon yaakaar naa suñ ca yeggee risque wala du risque moom kañ na ñuy xam ndax risque la wala du risque ci ñoom ñaar arbitre ba suuf la ba génn seen diggante waaw Babacar loolu am na solo journal bi tamit ñu xamal ne combat euh, bi nga xam ne mooy Modou Lo ak Ama Baldé bi Luc Nicolaï doon dox dafa nekk au point mort maanaam li ñu ko jëlee woon fan yi naan léegi mu taxaw dans quelques heures wala dans quelques jours ba léegi dafa mel négociation daal dafa taxaw. waaw loolu moom moo ci am parce que yaakaar naa ne bu négociation yi taxaw kon kon ba tey dañ naan amoon na fi waaw. waaw kañ lañ koy bëree la ñuy wax ak fu ñu yaakaar naa ci problème négociation ci mais nag rawatina sax ci liñ ci mën a am ci ay Ama waaw foofu la tak-tak bi amee parce que côté Modou Lo moom ne nañ lépp baax na kon nag yaakaar naa ne parce que même gis nañ sax benn vidéo boo xam ne nii ci Lutte TV ki nga xam ne mooy Demba di wax ne que Modou Lo wala boog Ama bu mu ut raccourci na ñëw moom comme moo waxoon mel ni ki ñoom pare nañu kon xëy na li des si côté Ama la dese ah làmb nag comme li may wax la rek da ngay réclamer li nga bëgg ñu fay la ko bu ci promoteur bi d'accord ngeen të tënku ci dem bu fekkente ne d'accord ci nag ñu wari leneen waaw. waaw beneen combat bi nga xam nag fan yëpp nag mi ngi nekk euh, genre buzz si si presse bi muy combat Reug Reug ak ki nga xam ne mooy Bombardier nit ñi nag combat boobu ni ñu koy wax mais ni ngi wax tamit ban promoteur moo moo moo nar a tëgg combat waaw waaw ban promoteur koy tëgg ah waaw fi mu nekk nii daal moom it combat la moo di Bombardier parce que comme ni ñu ko xamee Reug Reug réclamé na dafa bëgg a bëri ak Bombardier Bombardier vidéo ci Leewtoo TV. taxaw na ne moom pare na ngir may ko sens parce que jàpp na ne grand contre petit daa war a am ban promoteur koy tëgg nag ah, dégg nañ ci waxi li Nicolas yi su dee yàlla na beneen promoteur bu muy wërsëg tamit yàlla nga ci jot parce que loo ci mën a dégg daal fi mu nekk nii moom dama naan euh, li des fi mu nekk nii mu ngi des ci diggante promoteurs yi ak mbër yi bu ma ko waxee nag mooy liñ lay fay ak li nga fay li ma la mën a fay ak li ma ak li may nangu loolu mooy nekk fi mu nekk nii pour man problème bi ñu seen diggante. journal tamit xëy na dara ki nga xam ne mooy Max Margan di directeur directeur technique bu écurie Lansar ñëw na tamit si combat bi nga xam ne moom lañu moom la Pape parce que nee na mën nañ koo daan ak yaakaar na mën nañ koo daan pour man moo tax ñu jël combat bi parce que bu ñu yaakaaru ko ne Siteu mën na mën a daan Papa duñ jël combat bi te Siteu itam yaakaar naa ne war na mën a daan Papa parce que Siteu tey bu ñu tewee ci làmb ba mu yaakaar na mënta daan Papa pour man kon amatul lu mu war a mën def ci làmb yaa ngi dégg Père Max loolu mu wax mooy li nga xam ne nii moom mooy li mu a te yaakaar naa mooy li am maanaam nañ war nañ mën a daan Papa Sow parce que loolu tax ñu jël avance bi Papa tamit noonu ko si te yaakaare noonu la koy yaakaare mais lépp fi muy leere rek mooy saa yu arbitre bi génn seen diggante waaye li ma xam daal bëri njool la ak ndaama waaw combat boobu boobu grand a gis diggante loolu am na solo Babacar suñu jógee nag suñu laam lañuy dem si Leewtoo point net Leewtoo point net mi ñuy xamal ni que euh, ki nga xam ne mooy Pape Dia di promoteur ginnaaw mu toggee ñetti at euh, tëggul làmb fas yéene na tëgg làmb suba si Adrien Senghor tegu mise mise huit cent mille loolu am na solo Pape joo xam nga ko toog ñettaat at moom absenté niveau boo ñëwaatee tey dañ koy wax mu dal ak jàmm rek yaa ngi dégg Pape Diop moom yaakaar na tamit na ci ñi nga xam ne nii marqué nañu lutte simple bi ci ay mise ak mu koy organisé yaa ngi dégg kon ñu ko ñaanal yàlla rek ñëwam bu mu nar a ñëw suba ci Adrien Senghor yàlla ñu si jëlee ndam wax ne loolu yokkute rek ci làmb simple. Babacar suñu jógee si Leewtoo point net nañu dem si Leewtoo TV dafa euh, euh, moom euh, nekk tamit patron wu Leewtoo Leewtoo Leewtoo point net ak Leewtoo production ak Leewtoo TV moom nag xëy nañu nga dalal ko Babacar wax na nag si ay combat yoo xam ne mu ngi en gestation. waaw c'est le DG de Leewtoo production lépp ngi Leewtoo yëpp ngi ci biir Pape Thialis Faye moom moom indi na ay leeral parce que dañ ko dañu dégg gisoon fan yii que nañ mu ngi dox diggante Boy Niang ak Balla moom nag jàpp na ne moom actuellement lii war a tax lii dajaloo boobu war a tax promoteur jóg doxi combat loolu dajaloo bul ci côté maanaam bu ko waxee mooy administratif ci côté toog ak maanaam ut licence benn bi des mooy toog ak ngi ko war a seqal ngeen waxtaan ne na yooyu amagul comme ne la boo xam neex la promoteur bu ko tëggit am nga combat moom itam bañu ko moom itam kon ko defe naa ku dem ca Leewtoo TV di nga gis lam fa leeral bu baax a baax moom Pape Thialis Faye Babacar ñu jeexalee ak euh, anniversaire yi suba suba nag ñaari nitu lamb ne def anniversaire ki nga xam ne mooy Alioune mooy euh, nekk promoteur Babacar. waaw loolu de dañ leen di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram rek parce que ñun yaakaar naa ne ku ne tey na ne ne gis na ne yaa 94 ba tey mu ngi ne ci bopp lamb ji di ko doxal te néewuñu lépp a baax waaye waaw am na boog lu si baax kon ñu ko ñaan gudd fan ak wér gu yaram yàlla na yàlla fàttaliku mu yàgg a feete anniversaire am boobu suñu papa Gaston itam yaakaar naa ne ci côté boobu wane na boobu mu baax a baax ci réew mi kon daal ñoom defe naa ne ay mag lañ mais ay royukaay lañ ci sunu ci ñun xale yi ñu ñaan rek anniversaire yi ñu yàgg ko feete ak jàmm ak salaam di wax ne que ñoom waaw yàlla nañ gudd fan yàlla defal ko yëpp. Babacar si kàddu yooyu leen tàggoo di leen jox dig daje lundi incha allah a suba na am revue de presse. Ah, yaa ma gën a xam. kon ma jox leen rendez-vous euh, lundi incha allah si kàddu yoon leen tàggoon leen jox rendez-vous lundi incha allah balaa boobu may nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Dadigé di nuyu Astan ne dèjà Brahma Chéri Khadija di nuyu Aïcha Faye ak ki nga xam ne mooy Aïda Diouf Babacar. waaw noonu lay demee boo déggee nag mu ne du am suba xëy na suba da di feet. mais loo ci mën a dégg daal dañuy ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq di wax ne daal ñu ngi guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a bi ñu guddi lu see yàlla nañ ci duggoo bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu rawatina fa ñu koy defe ji muy tuwaawu nag njaasaan ak Medina Baye ak Touba ak Yoff di ballu ñëpp ak di nuyu waaye rek encore une fois internet yi mais fans club Babacar bi du ma leen mas a fàtte maa ngi leen di baax a baax a baax te wax ne que daal ndey ko ma fal yàlla na jàmm yàgg Sénégal barke yonent ba leen di incha allah